mu ne ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax mu ne kàddu yi yóbbaale na lépp dégg nañ ko bu baax a baax mu ne jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëf Fall mu ne kàddu yi nga boole ci dëkk bi nag mu ne loolu loolu itam toll nañ ci bu baax a baax mu ne lu dox ba agsi rekk la mu ne loo xam ne ab tàmbali la mu ne tey day wéy di wéy mu ne loolu mooy sàmm xormay sëriñ bi sàmmal ko xormay dëkk bi mu ne lool doon ak tàmbali boo xam ne mu ne fañ ko séentu ci dëkk bi mu ne dëkk bi daa am war may boppam ndax borom liggéey bu rëy bi fi nekk mu ne kon sàmm warma ji mooy sàmmal ko war may dëkk bi mooy gën a jug nag mu ne gën a jublu ci sàmmal ko lépp mu ne loolu fañ ko séentu mu ne loolu fañ ko séntu dëkk bi daa war a moom boppam mu ne foofu la jëm mu ne loolu ab tàmbali rekk la mu ne waaye mën naa doon tàmbali bu mat sëkk mu ne tàmbali boo xam ne day wéy di wéy ba mu àgg fa mu jëm mu ne fa mu jëm nag mu ne fii ci kaw suuf kenn amu fi loo xam ne la nga am sëriñ bi moo la ci gën a yey mu ne dafa am réew mu ñuy wax itali capitale ba di Rome mu ne kilifa diine ga fa nekk fa mu nekk mu ne foofu mu nekk am na indépendance am totale mu ne léppam moo ko état boppam la yor mu ne te kooku la mu am mu ne gënu caa yey Sëriñ Tuubaa mu ne Sëriñ Tuubaa kenn gënu koo yey ci boromam mu ne kon alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw Sëriñ Fàllu foofu la dëkk bi jëm ndigal laa ngoog nañu ànd ak suñu xel ànd ak suñu sago sëriñ daam sooda mu ne sëriñ daam soode mii waxoon na ko ko mu ne ñi fi yàlla teg ci saayir si bu leen réeroo ak ñoom mu ne ànd leen ko ak ñoom mu ne borom liggéey bu rëy bii mu ne liggéey na liggéey ba mu agsi fii xat dammul deret tuuruwul kon nag li ñu bëgg rëy na lool waaye yomb na suñu borom yombalal na ko it moom sëriñ bi mu ne kon nañu jugaat bu baax mu ne def suñu xel yépp ci dëkk bi ndax borom dëkk bi def suñu def ci suñu yitte jëpp ndax dëkk bi gën a gën a sàmm gën a set gën a leer gën a sell mu ne suñu yitte jëpp nañ ko def ci dëkk bi mu ne ñu xam ne lu jot rek am kon jublu dëkk bi rek mooy jubloo war ma dëkk bi mu ne jot na suñu xel ak suñu yitte ak suñu jublu lépp nay dëkk bi rek mu ne loolu mooy saayir si bokkut ak baatin bi baatin bi moom mu ne bu suñ xel demee ci maam Cheikh Cheikh Ibra rek mu ne mu doy ñu ak soññ waaye saayir si nag mu ne in fokk ñu yëngatu mu ne kon noonu la demee nañu gën a lu baax incha allah li ñu bëgg mu ne bëgg ko ngir sëriñ bi mu ne bëgg ko ngir cëram bu rëy bii mu ne cëram bu rëy bii nga xam ne fii ci àdduna la tàmbalee jëm ëllëg a ñu jëm mu ne nañ ci def suñu yitte suñ kéem kàttan dañu ko yóbbal fa ñu bëgg kon alhamdulilahi rabil alamin nee na moo yebal si rakam ju tedd ji di jëwriñam ñu koy wax Serigne Cheikh Fall moom sëñ Modou Moussa Fall waaye ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng nee liggéey bii moo fi indi tey nag Mbàkke mooy addi ji nga xam ni moom la Cheikh Fall daan jox sa maam muy liggéeyu tabaski yi mu jëm si fii ci yow nga xam ne mooy liggéey bu mag bi nee na junni xar la ak téeméeri xar ak ñaar fukk teewul nag la daan dem njaarim nga xam ni foofu la ko Seex Ibra daan yóbbu muy ñaar fukki xar ak juróom-ñett loola dem na njaarim nee na addi ji muy joxe nag sëriñ am den ciy jiital yeesalaat ak njébbalam ak pas-pasam ak mbooleem yoonu kër Seex Ibra Faal wépp di bëgg nag ci addi ji